loolu leer na nañ ëmma maa ngi lay nuyu di balaax si koor gi. waa jàmbaar ñu ngi leen di balaax di leen balaax di balaax Sénégal bi di leen balaax di ñaan ñu dugg ci koor gi bisimilah rahmaani rahiim gën ci ay gën ci koor gi bañ a nekk suñu mujjanteelu ñu fekk ko ay at yu bëree bëri bëri yàlla jégal suñuy bàkkaar may ñu gudd fan ak wéegi yaram macha allah. sa digganteeg docteur Macoumba Diouf laataa may ñëw ci tey li nga xam ne war a jataay bi. waaw su ma digganteeg moom yàgg na. mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla cofeel bu dëggu mu nekk suma kilifa nekk suma conseil ci lu bari ba tax na li ñuy wax wàllu mbay bi su ma ci amee fit wala ma am sañ-sañ moom la ci wàllu xalaatam bu sell ak conseil te gis ñu si tànk ginnaaw tànk na bu lañ ci gis dam contentement bu baax a baax mu nekk nit bu dëggu nit bu bugg jàmbaar nit boo xam ne amul daray caaxaan boo ko dégg ci caaxaan suy wax boo ko dégg la nga xam ni nit bu dégg mooy wax waaw nit bu mën ni tam tamit en plus waaw xamante bu ñu xamante maa moom rëccu wu ko te gis naa nit ku baax la te ma xalaatam sell na hmm. mu mel ni kon mbéyum dër mi kon yow yaa ngi ci bu baax am nga tool maa ngi ci bu baax. dégg am nga tool. waaw am naa na fu wax ne am nga tool xam naa sax tool ba fañ ma wax fa am tool. waaw am naa ko maa ngi ci kaw. yaa ngi bay yaa ngi sax. waaw maa ngi bay mais bëgg naa mu gën a mu mu gën a yaatu. Uh-huh. waaw te mu ma ciy jàppale bëgg naa mu gën a yaatu. Uh-huh. bëgg naa nekk mu nekk ay ay maanaam ay hectares yu bari. Uh-huh. parce gis naa ni. njëriñ la ci ci jeunesse bi waxuma la mbëri sax mais njëriñ la ci jeunesse bi sànq maa ngi koy wax ñun am nañ chance tukki ñëpp alal bitim réew ay baykat lañ ñu am ay jet privé am teraanga yor ay nekk multimilliardaire te bëri na ci doomu Sénégal dem immigré bu ñu demee foofu dañuy bay waaw te liñ ci gis seen bopp bay liggéey noobul la mbay am am bi day sell li ngay dundee day sell ba pare aussi dafa nekk loo xam dafa baax ci sa si ci yaram wàllu yër gi yaram yàlla may nañu suuf am nañ ndox am nañ naaj tey boo duggee fi di dem Touba war nga jógee fi di dem Casamance wala nga tukki da nga romb boo xam ne oto bi na daw deux heures temps doo àll bi da ngay xool fa sa bët di dem côté yëpp àll lay doon war nañ ko mën a exploiter su amee bëri na ci xale yu jógee fii dugg ci gaal yi di dem wala ñuy dem di immigré dootuñ dem dañuy toog. parce que a ngi ci ah mun nga ci gagné à 100 pour cent te tey boo amee tey ku mel ni docteur Macoumba nga xam ne maanaam lu ci xelam xarañ na ci lool moom dafa jóg pour jàppale jeunesse bi président bi ñu ngi koy dégg lu mu lu mu lu mu lu mu génnee pour jeunesse bi projet boobu ñu ngi koy ñaan mu nekk tey projet boo xam tam aussi du nekk lu ñuy wax mais luy ñuy jëfu la li bët di tegu la jeunesse bi liggéey lañ bëgg Sénégal jeunesse bi fi nekk bu nañ liggéey la ma la fi doon bëgg nañ liggéey mooy xoolal tey ni ñuy xaroo ni ñuy ni ñuy duggee ci géej xool nañu pour lan pour nga nekk doom bu góor ci famille. yaakaar bu góor boo ko doonee sonn nga du dëgg ci yow nga nekk borom jom nekk nekk dar am esprit fighting bëgg a tere say waajur bëgg a tere sa askan te góor bu nekk moo ko bëgg kon tey jeunesse bëgg nañ liggéey mais jeunesse bi tamit bu ñu fàtte ni mbay mi dara bu ko xaalis da ngay ah, baykat la wala kii non moom day baykat wala nag non bay liggéey noobul la ñëpp àll ci àdduna bi ay baykat lañ dara ëpp ko benn liggéey gënu ko jaar yoon dara ëpp ko wér-gu-yaram liggéey am na ci dëkk bi mais nag président bi jàppale ndaw yi tey docteur Macoumba soo xoolee taxawaayam xam ni bare na te mi ngi dem à 100 pour cent parce que man damay ànd ak moom fu nekk lépp loo gis rek moom jeunesse bi rek njëriñu réew rek fu la na am na ñoo xam ne lañ gën a jàppale parce que bu leen jàppale rek jeunesse bi gis seen bopp am na ñoo xam bu leen jàppale jeunesse bi gis seen bopp te jeunesse bi mbay liggéey la mbay liggéey gënu ko nekk liggéey noonu. waaw nañ prépare ñëpp muy leader yi leader yi ak jeunesse bi ak population bi ñëpp ñu jóg mu liggéey suñu réew beneen bi tam aussi mooy li ma bëgg a xam ne man maa ko seetlu mooy réew mi ku lekk sànni ku jël dara tuur ci mbedd bi dëkk bi ñu ñoo ko mën defar environnement bi mais naa ci bàyyi xel des mu jëndee ak oto mu lekk mu génne benn bu sax sànni te boo demoon Europe tey tey tey tey suba doo ko def da koy bàyyi ci saa si tamit aussi nañ bàyyi xel ci dëkk bi am na loo xam ne lépp président mënu ko mais am na loo xam ne ñun ñoo ko ci war a mën jàppale. jukko yi tamit aussi nañ ko defaraat parce que Sénégal réewu la réew mu am yar la réewu teggin mais dama commencé seetlu ni ñu ngi commencé ñàkk lu nga xam ne nii non suñu valeur dëgg ñu ko commencé di ñàkk ci lu nit neex wax kii maanaam xale yi di juddu yi ñëwaat nañ leen sóor. du dëgg man ba ma bëree Gris Bordeaux mu dóor ma toj suma rikaan ma yow gis Sénégal àdduna bi yëpp Sénégal yëpp taf seen ci laa xam ne man sumay kàddu dama ko war a sama wax dama ko war parce que mu ngi may bàyyi xel kon tamit aussi loolu dafa nekk loo xam ni dem conseil la pour pour nit ñi bàyyi xel ci ni ñuy jëfee parce que suñuy doom ëllëg ñoo ci nar am problème ñu defaraat jikko yi yónantewaat jàmm bu wér Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. yàlla yàlla may wér ak wér la waaw yàlla yàlla gën a tàppee xol yi Sénégal yàlla nekk ci réew yi gën a màgg ci réew yi mën nañ ko. waaw parce que Sénégal yàlla may na ko xel mu xel mu baax waaw yàlla na ko mu am jom xam nga yàlla may na yàlla daal defal nañu lu rëy ñun ñun Sénégalais yi kon loolu nag moom vraiment ñu ngi ñaan yàlla mu bañ ci jóg waaw loolu daal am ci lu may lu may lu may <laughs> waaye am na nag lu lu rëy rëy loo xam ne ñu ngi ci mais yàlla bu soobee jàmm. waaw. xam li ma dégg rëy na dégg noonu. ah li ci sa côté kay loolu la. contrat bu bees. waaw ñu ngi ñu ay combat ñu ngi ko proposé combat mais nag bon xam naa du yàgg dara dañu ci dégg dara. Ah. waaw ñu ngi ci dégg dara combat bu neex la. non non non doo doo bi ci biir combat yi kenn la ci lak tafaatin bal ak ñeneen ñu bokk ñu ñu ñu limul sax combat la boo xam ne daal combat la boo xam ne daal. su taxawee. ah man jàpp naa dina dina bëri non dina ni combat moom bu bu neex lay doon. dana bëri coow waaw dina combat bi neex ñëpp lay doon waaw combat bi neex ñëpp la comme bis bu rëy la. léegi muy am euh, muy ama euh, kii nu mu tuddati booy ñaar ban ban gis-gis bi am combat. muy booy ñaar booy ñaar. booy ñaar ak Balla Gaye. non combat bu combat bu nu ko neex. Hmm. combat bu neex la combat bu gars yi xam ci la. Ah. waaw di ñaanal su ma rakk yàlla may ko ndam booy ñaaw yàlla ko yàlla may ndam bu rëy mën na dara ci bàll non amul ku mënul dara ah. na ni mbëri champion la mën na bëre macha allah am na ginnaaw yàgg na bëre combat yu mag ah non combat yu xel ñaar de non non xel ma daal yàlla xam na loolu pergas <laughs> pergas mi ngi fi sama père sama xarit sama père wax dëgg yàlla <laughs> ah. maa koy nuyu bu baax a baax ok yi